mbokk Samagal TV boko internet yi ñu ngi fii ba léegi ci deuxième édition boko sàmm fii ci esplanade Estade Amadou Barry tey nag ñu ngi taxaw ci bergerie boo xam ne kilifa gi mu ne wax fi may fan kilifa gianaa la Euh, Mang ngi lay delloo char di la fay di la nuyu di la bëggee. tur bi lan la. tur bi Bachir la. Bachir euh, fii mooy ban Bachir. fii mooy bergerie Nderengi family. Nderengi family. waaw ah, ah. ah, Pël Fuuta la. waaw léegi ne te li nga doon moom boo ko bañee daf fekk nga gën see ñaar. loolu dafa leer mais lan moo lan mooy fee euh, lan kañ nga ñëw Sénégal d'abord. bon Sénégal mën naa dama yeew rek gis fi sama bopp. waaw yàgg naa fi trop waaw. nga nekkoon ci ban élevage wala ci daalaadum nga njëkkee. non non ma nekkoon ci élevage euh, kurkur yi. bon ba léegi xam naa ni jotaguñ laadu mais ñu ngi ci lu xaw a tane quoi te ñu ngi ñaan yàlla jot ci crème bi. ci laadu waaw non mi ngi taxaw euh, booy xool 2016 euh, noonu lañ dëggal carrément comme li ñuy wax laadu mais à part boobu ñu ngi woon ci xar yi mais dugguñu si woon carrément waaw dañuy def opération wala yenn saa ñu gis xar ni jënd yar ba tabaski ñu bëggoon ko trop mais comme laadu mi nii gars yi xool naan ñu ngeeg laadum bon 2016 daal lañ ko commencé bàyyi xel jàpp 2017 waaw. mais instant boobu lan ngeen commencé da ngeen euh, euh, simil euh, ciblé ay sang xool yu leen neex ngeen dem uti ko wala nan ngeen dem no jot nañ ñoo xaw a ndax tuuti nag. waaw ndax mënul ñàkk ci càmm gi. mais dañuy féliciter Modou ku ne xam na ko ci élevage moo nekk yëmbal tali Dame Diop kenn dootu ko présenté ci élevage ndax maal yi bari jaar na ci moom bu mu gisee ñu xaw a sonn franchement ñu ñëw ci moom mu jël ñu teg ñu si jox ñu ay xar yu mucc ayib ba ci kii ma tee moom moo ñu ko jox. Euh, mu ngi euh, bergerie Kër Seydi Jamil waaw. kii mooy kii euh, Cheikh Ndigal. Cheikh Ndigal mi mi ngi nekk doomu Jogomaay. Jogomaay mi ngi nekk doomu Kaskas Kaskas mu ngi nekk doomu booy Séeréer. Hmm. bon fu mu ne nii nag mu ngi si 3 ans. waaw. bi mu nekkee xale ba léegi maa ko bi mu nekkee xale la grand bi xool fekk ma sonn ci xar yi. waaw mu yëkkati xar mi jox ma ko yàlla xam na ni tamit laaju ma si dara dafa ma gis ma sonn dëkk di dugutu génn mu xam ne bëgg naa te aw ma njëg li ndax ku yar ay xaru kurkur noo jënd laadum moom ci mbaaxam mu yëkkati xar mi ne ma bas jëla xar mi nga dem liggéeyi moo ma jox xar mi mag bëgg nag élevage laadum à cause de Maodo tamit ndax lim ma defal ok boobaak léegi xarit ba mu la ko joxee est ce que produit na la loolu génneel weccit wala na nga def. non macha allah wax dëgg yàlla te li gën a sedd sama xol sax mooy euh, dama ciy maye tëb ñoo xamante ne nit day taxaw nekk magum jëmm ne ma ma juddoo ba léegi musuma jaay xaru 200000. mais dama ko ciy may tëb mu jaay ci xaalis bu bëree bëri bëri am na ñu bëri ñoo xam ne jaay nañ ay doom ay millions yoo xam ni. am na ñu gën a jaay doomam cher sax man jaamu leen may tëb la loolu gën na sedd sama xol ci loolu. famille li nga lay koy booleel foo leen jëlee. bon naa tamit kër Modou la jógee moo waaw ma kër Modou Lo Modou Lo daanaka man li nekk sama kër yëpp këram la jógee waaw waaw kon euh, tey fan nga toll instant bi gis naa famille yu baax yu fi nekk ak benn mboote ak maal bi fan nga toll da yow da ngay juddulee di jaay wala da ngay def non fu mu nii même su ma juddulee jaay aussi tamit euh, pour jëndaat xar la ba léegi dañoo toll si jaay jaay ñetti jënd benn waaw tollaguñ foo xamante ne si dañ naan dañuy jaay xar di dundee ñu ba léegi suñu xaalis mu ngi dugg ci xar yi waaw xont dafa yi toll nañ foo xam ne léegi ñu ngi yor seen bopp ci xont waaw yenn saa nag ñu yor seen bopp eh, yenn saa ñu toll période boo xam ne ñu yor seen bopp mais yenn saa ñu toll jamono joo xam ne tamit foog nga làmb sa poos yenn saa ñu yor la ba pare nag yor seen bopp mais dina am fu mu toll foo xamante ne day taxaw yow yaay obligé sa amour mooy tax nga yëkkati sax li nga war a denc jox leen ñu dund mais dina toll foo xam ne ñoom dañ lay jox ba pare jox seen bopp. Hmm. Euh, kon euh, numéro bi fan la ak euh, tegtal bi. numéro bi mi ngi nekk 77 927 31 67 bon Belgérie bi mi ngi nekk yëmbal buun ma nu mu tudd jumaay Pël Fuuta ci poste courant bi boo fa ñëwee rek incha allah boo wootee dañ lay tàllal loxo rek soriwul dara. ñaata nga dem foire. bon bii mooy sama troisième ah quatrième quatrième. man nga dem. bon dem naa rep Fiara. ak journée de l'élevage euh, bi amone yëmbal ak bi ni waaw. mais bokk ci association. Hmm? bokk nga ci association waaw bokk naa ci association. bokk naa ci rep bon ak euh, waaw maa maa ngi rep parce que. mu matar ci ki kii. non kii rep ba fa démé mo battre meilleur poids meilleur TP. Ah. wa ben xar tamit surtout ko fo won LCS dafa amone ay coow yu ndaw yi ma fa amone ak jury ñu ne dañ ma sanctionné motax yegul yéegul dama ne seen foire bi kon defe waaj. non ñu ngi koy waaj ñu ngi koy waaj incha allah nañ ma xaar. waaw waaw la waaw.